mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di wax ne ñun ñëpp dégluwoon dem président Macky Sall ci discours débat bi mu def ak ñeenti journalistes yi mu doon jàkkaarloo waaye bi muy wax ñaari tontu rek lañ doon xalaat xaar ci moom ci question yu sénégalais yëpp di posé mooy kañ lañuy dem élection ci niko ko ko conseil constitutionnel laajee woon ak lan lay def à partir du trois avril wala fan lay nekk waaye bi ñu dégloo waxam ba mu jeex li ñu jàpp mooy tontuwut benn ci ñaari question yooyu def ne ñaari question yooyu yëpp danaa dajalee mbooloo ñu waxtaan luñ ci décidé danañ ko def ñu jàpp ne président Macky moom rek mooy autorité bi nga xam ne bii moo am sañ-sañu néega ni bind décret ne date bii laa jàpp ñu def ci élection te it wax ko ne conseil constitutionnel bi mu defee procédure bi ba mu yegg jàppoon na ne ñaar fukki nit ñooy dem bi xew-xew bees amee ci diggante mu bindaat bataaxal ne fukki nit ak juróom-ñeent ñooy dem kon conseil constitutionnel moom wax nañuy dem élection kon jarul muy jéem boole nit ñi. comme niñ ko sama naataango yi waxee léegi ñuy fësal peut-être suñ diggante ne d'accord ñu maanaam politiciens yi d'accord ñu mu ne waa gis ngeen d'accord ñu kon conseil loo ci xalaat gannaaw nag ci conseil boobu la nar a dellu na yem ci décision bi conseil bi jël ba pare ndax olof day faral di wax wiiri wiiri jaari ndaari na njëkkee ndaari rek benn yoon ñu gàññe ñu ñëpp du temps damay dëggal aussi en tant que ancien ministre de l'intérieur parce que man maa organisé woon élection présidentielle deux mille dix neuf que mën nañ bu baax organiser élection présidentielle ci mois de mars bii di ñëw enfin comme ni ma ko waxee woon également ci dernier point de presse bi Bassirou Diomaye Faye conseil constitutionnel moo ko jàpp ne war naa dem élection nañ ko bàyyi mu participer ci campagne bi comme fukki candidats yi ak juróom-ñett yi nga bokk asalaamaaleykum wa rahmatulah. merci mesdames et messieurs bonjour. Nous avons tous suivi le discours débat du président de la République ce 22 février 2024. Euh, nous nous attendions tous à ce qu'il à deux questions, deux préoccupations des Sénégalais. La première préoccupation, c'est la date de l'élection présidentielle, conformément à l'invitation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 février Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'il fera, où il sera le 3 avril. Euh, manifestement, dans ses réponses, le président renvoie à un dialogue. Nous rappelons au président Macky Sall qu'il est la seule autorité compétente pour fixer la date de l'élection. Nous rappelons au président Macky Sall qu'il ne peut pas mettre ensemble les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel et les autres segments, quelle que soit leur position dans le pays, pour discuter d'une date d'élection. Le Conseil constitutionnel a déjà arrêté la liste. Il doit, conformément à son serment du 2 avril 2019, respecter cette décision. Je confirme, en ma qualité d'ancien ministre de l'Intérieur, organisateur des élections présidentielles, de l'élection présidentielle de 2019, qu'une date peut bel et bien être retenue dans le courant mois de mars 2024. Enfin, je réclame la libération, comme j'ai eu à par le passé, de Bassirou Djamar candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour qu'ils puissent participer à la campagne comme les 18 autres retenus mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ngi leen di nuyu yéen suñu mbokk journaliste yi ñu nuyu également di tàmbalee samay wax di d'abord euh, jaale ñi nga xamee ne ñu si bëri ay tout tànk lañ te ñàkk nañ seen kenn ci manifestation yi passé yi malheureusement ni ngeen ko xamee ñenn nañu sax étudiant la ñuy euh, donc may jaal également le corps enseignant mais également les li nga xamee ne ñàkk nañ ko li li ko waral nag defe naa ñëpp xam nañ ko ndax Sénégal jàmm lañ ko xamee te ñun jàmm la ñu bëgg bu ñu soxleen heure bi ñu ngi dem ci liggéey yi mais malheureusement gisuñu loolu Sénégal ndax ñenn nañu bu ñu ne dialogue ñu dem leen dialogue ndax loolu mooy jàmm mais ñëpp xam nañ ne tey Sénégal leen lañu soxla mooy dem ci élection yi nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a rafetee en tout cas conseil constitutionnel noonu la ko waxee donc pour vous dire et que li gars euh, waa FC 25 wax ñun demuñu dialogue ndax dialogue boo xamee ne ci forme bi comme ci fond bi doxul boo fa demee je pense que li fay jële xam nga ko ndax moom moo wax moom président moo naan élection inclusive mais bala nga ne donc mooy li ñëpp bokk mais mënoo ne élection bu ñëpp bokk te waxuloo dialogue bi ñëpp bokk mais am na ñoo xam ne mënuñoo bokk dialogue ndax bu fekkente ne on n'a pas les mêmes objectifs parce que candidats yi mënuñu ne ñii la conseil wax dañu dem élection ngeen bëgg leen booleeg ñeneen ne dañu waxtaan je pense que xam na ne waxtaan mënu fay am donc ñuy réitérer suñu engagement ci loolu di ko ñaan juste mu yërëm Sénégal ndax heure bi gars yi sonn nañu et la preuve ma ciy profité également di ko lancer appel ak les autorités université yi bi ñu ko tëjee ci présentiel yàgg na xale yu bëri jàngeetuñu alors que ñun enseignants yi les gens sont prêts à aller au-delà de l'enseignement virtuel dem toog ak étudiants yi jàngal leen defal leen travaux donc pour pour me résumer heure bii leen rek moo mën a am ci Sénégal bitim réew nawluwaat ñu ñu nawlu suñu bopp ngelaw la waaye nañu bàyyi lii mu lii mu teg ko ci suuf ñu dem élection le ministre de l'intérieur Ali wax na ko donc man dama gëm ne ba tey avant le deux élections c'est possible loolu lañ koy ñaan loolu la ñuy ñaan waa réew mi ndax Sénégal jàmm lañ ci bëgg buñ ci leneen donc pour dire que je ne pourrais pas commencer par mes propos sans vous saluer et saluer le peuple sénégalais qui nous regarde présenter nos sincères condoléances à no à nos à nos défunts parce qu'on a eu des pertes humaines y compris des étudiants L'occasion donc m'est donnée pour présenter mes condoléances au corps enseignant, mais également aux étudiants et à leurs familles. Pour dire que le Sénégal est un pays de paix, et nous, candidats, nous ne voulons que la paix. Raison pour laquelle on ne peut que suivre la volonté de, du Conseil constitutionnel et la décision du Conseil constitutionnel et la volonté populaire, qui est assez simple et très claire, c'est d'organiser des élections le plus rapidement possible avec les candidats par rapport à quoi Surtout que dans la forme comme dans le fond, rien ne nous lie. Dans la forme, parce que lui, le président, il parle d'élection inclusive. Avant de parler d'élection inclusive, parlons de dialogue inclusif, dans des conditions édictées. Alors qu'on ne peut pas regrouper au cours d'un dialogue des personnes et des personnalités qui n'ont pas les mêmes objectifs. Ceux qui, veulent, qui, ceux, qui, ceux qui ont par le Conseil et ceux qui ont été recalés. ne nous trompons pas d'objectifs. Le seul objectif aujourd'hui pour le peuple sénégalais est, d'aller aux élections présidentielles le plus rapidement possible. L'ancien ministre l'a dit, il est possible de l'organiser et nous sommes prêts. Quelles que soient les conditions d'aller à cette élection-là, et que lui qui sera rendre le tablier le avril comme le veut la Constitution. Je vous remercie de votre bien attention. Merci beaucoup.